illaa ma adxaltana fi daairati lutfika alxafiyi allazi iza latafta bihi li abdin kufi asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki ahlul xadis seen mbokk seen xarit eh, seen doomi nday Cheikh bay Niass moo leen di nuyuwaat kenn ku nekk ci yéen ci turam ak jëmmam di leen ziyaara bu baax waaye à travers yéen di nuyu eh, mboolem groupe WhatsApp yi nga xamante ne sama numéro mës na faa nekk te bi ci gën a ràññeeku nga xam ne daanaka moom ak ahlul hadis benn kër la muy alxaqu saabitun ah, groupe boobu nga xam ne suñuy soppe ñoo fa nekk suñuy mbokk ñoo fa nekk suñuy sëriñ ñoo fa nekk suñuy kilifa ñoo fa nekk ah, di leen ziyaara bu baax ci weeru gàmm bu màgg bi waaye tamit ziyaar bi ak nuyoo bi tey mu nekk lu ànd ak njukkal ak jaajëfal ak mastawu coono ci xew-xew yi nga xamante ne am na fi ñetti semaine ci ginnaaw précisément la 12 octobre samedi le 12 octobre 2019 te mu daloon sama kaw ma gis kenn ku nekk ci yenn mu taxawee taxawaay bu rafet ci jàppale ma ci wane naqaram ci soutenir ma taxawu mel ni mbir mi ci moom la dal wax dëgg yàlla mënuma lu dul jaajëfal leen ndokkeel leen euh, ñaanal leen yàlla ndax wan ngeen ma dëgg-dëgg ne ay mbokk ngeen fàttali ngeen ma wax ji nga xamante ne dañuy wax ne rubba axin laka lam talidhu ummuk bëriyaat na sa mbokk moo xamante ne sax bokku leen way jur bu leen jur waaye fam lay toll ak nam lay jegee ak lam lay jëriñ xëy na ñaare ñi nga jàpp ne ñoo la gën a jege mën nañ la ko bañ a jëriñ commencé ko ci ñi nga xamante ne bi xew-xew bi amee euh, changé nañ seen photo photo profil yi def ci sama photo am ñoo xamante ne lekkatuñu naanatuñu naqarlu nañu ko jusqu'à la dernière énergie am ñoo xam ne jël nañ seen téléphone woote am ñoo xam ne envoyé nañ message am ñoo xam ne dem nañ sax ba ci jooy di ci génne ronkoñ am ñoo xamante ne yuqi nañ seen poos ak seen alal di ci def wax dëgg yàlla taxawaay yu mel noonu euh, yelloo ñu njukkal leen yelloo nañu jaajëfal leen yelloo nañu masaw leen ci coono ndax nag ku la bëgg moom mooy mën a sonn ci yow moom ngay jaral leen nay waaye koo xamante ne bëggul la am na loo xamante ne doo ko jaral ba ilaa yawmi diin te xew-xew yu mel nii nag man dama jàpp ne euh, examen la woon maanaam bu dee dañuy wax examen baccalauréat wala man dama jàppoon ne examen doc doctorat la passage à doctorat la ndax jàng téere yi baax na lool mokkal nu suuseeg mutuun yi baax na lool waaye nag dafa am beneen école bu nekk ci ginnaaw loolu yëpp mooy doomi aadama yi ngay jëflanteeg euh, te nag yàlla dafa wax ci alxuraan ne maa kaana allahu li yazara almuminina ala ma antum alayhi xatta yamiza alxabisa min altayib wa maa kaana allahu li yutliakum ala alxayb walakin allah yajtabi min rusulihi man yasha donc man jàpp naa ne xew-xew bii li ko amal lépp ay tadabburaat la yoo xamante ne yàlla moo ko préparé woon pour seggal ñu yoon wi nga xamante ne dañ koy jaar waaye tamit seggal ñu ñi nga xamante ne dañ leen a war a gën a jàpp ak suñuy téeméeri loxo waaye nag seggal ñu ñi nga xamante ne dañ leen a war a tegee de côté loolu nag lu am solo la comme ni ma koy fàttalee toujours benn kilifa wax jumma wax ne dawalkatu oto mu paan ci digg dëkk bi wala ci buntu dëkk bi moo gën mu dem ba ci digg àll bi mu doog a paan am na ñoo xamante ne nga teel leen na ràññee xam ne ñii say soppe lañ foo xamee ñi deeyee fa foo pikiroo ñi naan fa garab nga teel leen a ràññee gën leen a jàpp dafay am solo waaye nag am na ñoo xamante ne ay bukki yu sàngoo woon deru bay lañ di la muuñal fekk gis la ak gis seen butit yi lañ yemale ñooñ tamit nga teel leen na ràññee tegee leen di côté ba bu ñu la encombré dafay am solo trop moo tax di sant yàlla ci examen bi di sant yàlla tamit ci leçon yi nga xamante ne tiireel nañu ko ci tax nañu comprendre ko ci euh, di wax ne wax dëgg yàlla euh, jot naa ci ay réaction yoo xamante ne man ci sama bopp toog naa samay ronqañ di génn ndax jàppuma woon ne nit ñi toll naa leen foofu à un moment donné sama téléphone soixante onze mille message ak lu topp moo ci nekk juróom ñaar fukki junney message ak benn maanaam dangay xool sa bopp bi léeg-léeg dafay dafay waaj a métti nga ne lii nan ngay def pour tontu ko ci ay nit ñoo xamante ne xamoo leen am ñoo xamante ne mosoo leen a jox lekk mosoo leen a jox naan euh, dara boolewu leen lu dut al uxuwatu ñii di dem ci seen kàggu ya seen kàggu ya leen seen maam bàyyil di génnee ay lasaraar yiñ gën a wóolu siru yiñ gën a wóolu di la jox pour nga jëfandikoo pour yàlla aar la sàmm la ñii di génnee lañ xam ci seen bopp yi di la jox ñii di def di la indil ñii di ñii di wax digg yàlla ku nekk ku nekk ak fa mu mënee ku nekk ak fa mu jàpp ne foofu la war a jàppee ñii di wàccee ay kaamil xam naa ñoo xamante ne teglante nañ juróom-ñaari fan yoo xamante ne chaque jour danañ wàccee soixante-dix kaamil juróom-ñaar fukki kaamil ba muy juróom-ñaari fan yu teglantoo ci xew-xew yooyu xam naa leen xam naa ñoo xamante ne chaque jour danañ dajale ay nit jàng 41 000 hasbunallah wa ni'mal wakil ba muy juróom-ñaari fan yu teglantoo ci xew-xew yooyu amoon ak ñi doon jàng yaasin ñi doon wàccee yeneen kii ñi doon def ay maanaam mënoo wax lépp waaye nag réaction yooyu yëpp jot naa ko te alhamdulillah maa ngi leen di assurel di leen garantil que ne maa ngi si jàmm bu baax a baax a baax a baax a baax di dollee sant yàlla lu ni ko olof yi di waxee lu wokkul dërëm wokkul ma sama intégrité physique sama intégrité morale mu ngi si jàmm bu baax grâce à seen ñaan yi ngeen ma doon ñaanal ak taxawu yi ngeen ma taxawu wax dëgg yàlla gis naa effet bi gis naa njëriñ li ngay toog léeg-léeg sentir ci sa yaram sentir ci sa bopp loo xamante ne dalay leen ñaanu doomi aadama yi la ah, nit nag nit mooy mbokkam nit nit mooy seetoom al muminu mir'atu axi te xool naa ci yéen gis naa sama bopp taxawu ngeen taxawaayu xadis yonentu sallallahu alayhi bi mu wax ne man raa minkum munkaran fal yughayyiruhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisaani wa in fa bi qalbi am na ñoo xamante ne jël nañ seen loxo def nañ luñ ci mën am nañu tukki dëkk dëkk ñëw fekk si def luñ mën am na ñoo xamante ne jël nañ seen làmmiñ wax nañ luñ yaakaar ne buñ ko waxee dana defar luñ yaakaar ne buñ ko waxee dina wane seen naqar am na ñoo xam ne nag naqarlu nañ ko seen xol du moom que am na ñoo xamante ne defoon nañ ko maxallu suxriya maxallu kii waaye nag dañoo xamul euh, yàlla dafay wala arab yi dañuy wax ne ida araada allahu nashra fadilatin tuwiyat asa ataaxa laha lisaana xasuudi lawla isticaalu naari fii ma jaawarat xaw ma nan la ko borom wax ja waxee xaw ma arfu arful uudi tiibu arful uudi bu taxutoon nag la ñuy taal safara ci bant bañ koy dugal ci safara kenn du xam xeetu uud kon yenn nattu yi yenn coono yi bu dalee sa moromi jullit nga bëgg koo def reetaanukaay bëgg koo def ndokkukaay bëgg koo def kii da nga xamul tëddaburaatu yàlla yi ndax kat yonentu yàlla yusufa biñ koy dugal ci kaso bi dugaluñ ko fa woon pour mu génn nekk buur bi ñu koy sànni ci teen ba sànniwuñ ko fa woon pour mu génn nekk l'enfant bien-aimé de l'Égypte waaye nag loolu yëpp ñoom dañ ko doon def wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu xayrul makirin dañuy teg seeni palant yàlla di teg ay plan am et à la à wu yàlla moom mooy prospérer ñoom seen plan dafay dem haba an mansuran di sant këri diine yëpp Tuuba wax dëgg yàlla awma seen fay seen taxawaay rafet na lool lool lool lool sama mbokki murid yi assumé nañ sama amitié ak ñoom jusqu'à la dernière énergie amul ci kenn ci ñi ma xamoon amoon nag ñoom am am di jàmm amoon nag ñoom xaritoo amul ci kenn ku xew-xew bi tax mu deltu ginnaaw ba ragal assumé sama amitié ak moom ñoom ñëpp taxaw nañ taxawaayu gar mi waa Tiwaawoon kazalika ak ñi ci aju yépp nekk Louga nekk feneen taxaw nañ taxawaayu garmi waa Njaasaan kazalika waa Canaba kazalika ba waa Pire ak yeneen mboolem këru diine yi nekk Sénégal Medina Baye noonu jeune médina yi wax dëgg yàlla ak euh, doomi baay yi doomi baay yu mag yi yan nañ ci yoon yeneen doomi baay yi am ci ñoo xamante ne dañoo nekk ba yeneen dëkk Iran fu nekk nit doomi baay nekk na fa woowee ma fa pour naqarlu mbir mi nga sentir ne daal benn groupe de personne taxawoon nañ pour def loo xamante ne yàlla bëbb na jaamam yi pour wan leen ne moom bañ na groupe whatsapp yi tamit ñi ma ci nekkaloon surtout ñi ma nekkaloon ci maydaan bi gis naa seen réaction ñoom ñëpp jarul may tudd tur ndax ku lim fàtte waaye kenn ku nekk ci ñoom dégg naa seen réaction am na ci ñu yónnee jël ci seen alalu bopp yónnee ma jot naa ko euh, am na ci ñu dajale yónnee jot naa ko am na ci ñu def ay ñaan am na ci ñu def ay wax dëgg yàlla taxaw pour dimbale jusqu'à la dernière énergie ñoom ñëpp jot naa seen euh, yéene bu rafet boobu noonu geste yi rafet na yéene yi baax na yal na leen ko yàlla fay ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na leen ko yàlla fay ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na leen ko yàlla fay ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen wax ne nañ siggi ñun ñëpp nañ sant yàlla en tout cas man de damay siggi damay sant yàlla parce que comme ni ma ko waxee ci video bi li ma dal ci may daanu xam-xam la ma dalee dalul ma ci loo xamante ne mën naa yóbbu mu atu doomi aadama yàlla nañ ci yàlla musal musal ci bépp jullit kon siggi rek nga mën a def bu fekkee nag am na ci ñoo xamante ne def nañ ko euh, zaria law yajiduna malji'an aw maghaaratin aw mudakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'un ñooñu yàgg nañoo bëri ci xeet wi waaye nag c'est pas la fin du monde ay leçon la yu ñuy jël pour ëllëg ñu xam fu ñuy teg suñ tànk bu baax a baax di jéggalu ci audio bu gudd bi waaye c'était juste lu nekkoon ci xol te wax dëgg yàlla génnee ko waroon te xamuñ naka la def pour génnee ko euh, lépp luñ fi wax kàddu yi xam leen ne lottu nañ ci génne li xol bi yéene woon pour wax in uridu illa lislaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah maa ngi leen di jaajëfalaat di leen gërëmaat di leen ñaanal yàlla ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu méngoo seen mbir yéen ñëpp mengoo suñuy mbir ci zaahir ak ci baatin yàlla na yàlla gën ñoo dimbale yàlla na yàlla gën a takke suñu xol yi te di leen gën a leeralal ne nag jël naa ay leçon yu mag a mag a mag a mag jël naa ay leçon yoo xamante ne mësuma koo jàng ci université wala ci téere wala ci kanamu boroom xam-xam te incha allahu taala leçon yooyu ni ma doon pratiquer ni ma jàng la ma jàngoon ci téere ak université noonu laa fas yéene pratiquer leçon bi tamit asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.